salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéen saxoo di topp seen émission sunu yaakaar amaat dañuy mbégte teewaat fii ngir wéy ak yéen jukki yi nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci injil ci téereb Macë ñu ngi leen di wax jërëjëf di leen nuyuwaat kenn ku nekk ci turam ak ci santam ci seen takkute ci seen émission boobu sunu yaakaar di leen fàttali rek mën ngeen ñu bind mën ngeen ñu woo mën ngeen yónnee seen i laaj ci numéro yooyu nga xam te moom ngeen di gis wala ci whatsapp bi tamit kon ñu ngi leen di gërëm sant tey dinañu Euh, jàng Matthieu Sarr ñaar fukk ak ñeent ci fàttali rek li ñu jotoon a jàng ci jukki bee weesu gisoon nañu waxtaan wi yéesu amoon digganteem moom ak taalibeem yi waaye moom ak tamit euh, xutbakat yeeg pharisien yeeg sadducéen yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kër yàlla ga gisoon nañu tamit noonoo bi nga xam ni juddu woon na ci dig seen diggante ak yeesu ndax ni mu doon fësale seenuk naafeq seenuk ngistal ak seeni jëf yu bon yi nga xam ne ñu ngi ko doon jéem a nëbb nit waaye mënuñu ko woon a nëbb yàlla mi nga xam te moom xamoon na lépp tey nag dinañ gis ci euh, Matthieu Sarr ñaar fukk ak ñeent Yàqub Yerusalem ak dellu doomu nit ki bi Yeesu waxee ba noppi mu génn ca kër yàlla ga dem dem noonu ay taalibeem ñëw ci moom ngir won ko tabaxi kër yàlla ga mu ne leen du gis ngeen yii yépp ci dëgg maa ngi leen koy wax lii lépp dina daanu ba doj dootu des ci kaw doj noonu bi nga xamee ne yéesu toog na ca tund oliw ya taalibe ñëw ci moom cig wéet ñu ne ko wax ñu kañ la loolu di am te luy tegtale ne yaa ngi ñëw te àddina di tukki yéesu ne leen moytu leen bu kenn nax ndaxte ñu bari dinañu ñëw ci sama tur ne maa di kirist te dinañu nax ñu bari di ngeen dégg ay xare ay coowi xare wattu leen wattu bu leen ci tiit ndaxte loolu war naa am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 di boolante tey bañante te it ñu bare ñuy mbubboo turu yonent dinañu feeñ ndax dinañu feeñ ndax nit ñu bare te gannaaw loolu gannaaw gannaaw lu bon day law mbëggeelu ñu ëpp dinañu wàññiku waaye ku muñ ba ci mujj ga mucc noonu xibaaru jàmm bi ci nguuru yàlla dees na ko yëgale ci àddina sépp ngir mu nekk seede ci xeet yépp bu loolu amee mujj jamono gi jot dina am bés bu lu ñuy wax li araam luy yàqe dina tege ca bëréb bu sell ba mooy li ñu doon wax jaarle ko ci yonent yàlla dañal ku ko jàng nanga ko xam bu ngeen gisee loolu nag ku nekk ci biir diwaanu yi de na daw ca tund ya ku nekk ci kaw taax ma bul wàcc ngir fab say yëf ja nekk ci biir kër ga ku nekk ca tool ba bul ñibbi ngir fab sa mbubb nga la jigéen ñi ëmb ca bés yooyu nga la it ñiy nàmpal ñaan leen nag seen gàddaay bu mu nekk jamono yu seddaayu lolli walla bésub noflaay bi ndaxte booba dina am metit wu rëy wu musula am ba àddina soso ak tey te dootul am mukk te bu ñu wàññiwul bés yooyu kenn du mucc waaye des na leen a wàññi ndax ñi yàlla tànn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 boo xamee ne ay bànqaasam duy nañu tey xobam sëq xam ngeen ne nawet jege na noonu yéen itam bu ngeen gisee loolu lépp xam leen ne jege na mu ngi ci bunt bi sax ci dëgg maa ngi leen koy wax nit jamono jii duñu wéy te loolu lépp amul asamaan ak suuf dinañu wéy waaye samay wax du wéy mukk yàlla rek moo xam bés ba waaye bés boobu wala waxtu woowu kenn xamul kañ lay doon du malaaka yi sax du malaaka yi ci kaw du sax man doom ji waaye bàyyi rekk moo ko xam ni bési nooyin ya noonu lay mel bu doomu nit ki di ñëw ndaxte ca bés ya mën ma nit ñaa ngi doon lekk di naan góor ñaa ngi doon takk jabar tey maye seeni doom ba bés ba bés ba nooyin duggee ca gaal ga xalaatuñu woon dara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 ci guddi la sàcc bi di ñëw kon dina yeewu te du ko bàyyi mu toj këram loolu moo tax yéen itam taxaw leen jonn ndaxte doomu nit ki dina ñëw ci waxtu wu kenn ci waxtu wu ngeen ko seenwul yee ci teg ca ne kan moo nekk surga bu takku te teey bu njaatigeem teg ci waa kër gi ngir mu leen di dundal ci jamono ja bu njaatigeem ñëwee te gis mu def noonu surga boobu dina am ngërëm ci dëgg maa ngi leen koy wax njaatige bi dina ko teg ci alalam jëpp waaye bu dee surga bu bon la bu naan ci xelam sama njaatige day yéex a ñëw mu tàmbalee dóor ay bokki surga di lekk te naan ak naankat yi kon njaatigem dina ñëw ci bés bu mu ko soone seenuwul ak waxtu wu mu xamul dina ko dóor ay yar yu metti jox añub naafeq foofa dees na ko dees na fa jooy te yeeyu ci ñaar ñaar fukk ak màcc ñaar fukk ak ñeent bi gis nañu yéesu ni muy joxe ay tegtal ay firnde ci mujjug jamono naka lay mel ngir nit ñi mën a waajal seen bopp nee na bés bi kenn xamul kañ la waxtu bi kenn xamu ko yàlla rek moo ko xam waaye joxe na ay tegtal ay firnde yuy wane ni bés bi bu nu gisee yooyu bu nu séentoo yooyu bés bi mi ngi jege si yenn yi muy wax ñu ngi koy gis ay xeet yu jóg dal ci kaw ay xeet réew mu jóg dal ci kaw réew dem nañ jamono ji ba nga xam ne sax lu bon léegi moom la ñuy dippee lu baax àddina wëlbatiku na loolu lépp yeesu xamle woon na ko yëgle woon na ko kon ñi ngi ci waxtu yi nga xamante ni moom la doomu nit ki war a dellu si ñu bàyyi ci xel bu baax ku nekk seetaat tooginam seetaat na muy jëfee ak na muy jëflanteeg ay moroomam ni ko yeesu waxee léegi ci misaalu surga bi nga xam dañ koo dénk ay moroomam mu toppatoo leen ni mu leen war a toppatoo kilifaam ñëw gërëm ko sant ko ak surga boo xam dañ ko dénk ay moromam mu leen di bundu xataal di leen toroxal naan sama kilifa ñëwagul léegi ba kooku kilifaam ni jamet ci kanamam bett ko gis jëf yu ñaaw yi mu doon def toroxal ko génn ko sànni ko si biti moom it na ku nekkoon saytuwaat doxalinam waxinam ma jëfinam ndaxte ñu ngi ci mujjug mujjug jamono bu ñu sukkandikoo ci tegtal yi nga xam te ni moom la Yeesu joxe ci saar Matthieu ñaar fukk ak ñeent bii kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewlu di leen wax rek ni mën ngeen ñëw bind mën ngeen jokkoog ñun ci numéro yooyu ngeen di gis ci whatsapp bi ci seen émission sunu yaakaar bu ngeen amee ay laajit mën ngeen ko bind ci suufu njàng bi nga xamante ni ci moom la laaj bi aju bu ko defee ñu nañ mën a tontu jëflanteeg yéen su ngeen bëggee xóotal seen njàng wala bëgg am ay leeral yu ngeen bëgg leerlu ci li ñu jàng jërë ngeen jëf na leen yàlla barkeel na leen yàlla sàmm te ñu ngi leen di jox dox daje ci ay bés yi di ñëw ci yeneen jukki tamit ba léegi ci injil ak ci téerab màcc jërë ngeen jëf